Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus. أعوذ الله من الشيطان وخد لي منافع الأوتان بعد الهزبلة وبعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد الهوقلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أحمد بن عثمان may ñëw di jàllale ay kàddu ay kàddu yi jéggulu yoo xamante ne bii dana koy jëmale ci cheikhu shuyuuxi alxalifa kilifa kilifa yi di ko jëmale ci Seydina Abbas ibnu Cheikh Ibrahim di ko jëmale ci Sëriñ Moustapha Hafsa wa Sëriñ Moustapha Saleh di ko jëmale ci kilifa yépp kilifay diine yépp ñu sant mbàkke busoog siyeeg ñasak laayeeg nyep, ndax itam nag jamono day toll foo xam ne nor mën a wax léegi sax waaye mënumaa ñàkk bañ a wax euh, moom baa mënumaa ñàkk maanaam junj li nga xam ne moo nekk ci xol bi waaw ma xalaat loo ko xel mi wax loo ko ngir dettal ko ñiy déglu munta ñàkk mooy di jéggulu képp koo xamante ne bii kilifa diine nga di jégalu képp koo xamante ne bii kilifa àdduna nga kilifay diine yi Cheikh Mouhamadul Mountakha moo nekk ci bopp bi kilifay àdduna bi rais Macky Sall nekk ci bopp bi may xalifa bi ak ñi bokk ci diine l'islam di jégalu président bi ak ñi bokk ci dawla bi yépp di jégalu itam sunu mbokki chrétiens yi parce que soppi fépp gis fan yi bi nga xamante ni bi mbir yi xew ni ci xale yi ma gis li nit ñiy daj soppe yi ma kersawu ci lool moo tax mënumaa ñàkk ba ñuy jàllale di leen jéglu di jéglu ñëpp di xam leen ni rek xala kulli xalin yàlla bi mënu indee fii rek lanu ni kat wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal joom ki fi jotee wala bu ragal jotee maanaam lu nekk di xew ci ñun ni guddeeg bëccëg di xewe rek ni weer wi ak jant bi di génn rek te bokkuñu ak wutale gi nu yàlla wutale rek eh, ma bëggoon rek waa réew mi dalal seen xel moo xam kilifa yi moo xam ñii ñu yélif moo xam kilifay diine yi moo xam kilifa kilifay àdduna bi nañu dalal seen xel ci man ci sama jëmm ji ndax ku tedd ki daf maa waajal ba ma ne cocc fi toll nii lépp loo xam ne luy yëngalum réew la wala luy naqari xolu doomu aadama du jóge ci man mm-hmm. waaw du jóge ci man niyatan du jóge ci man xaw lan du jóge ci man fi'lan waaw du ko yéene du ko wax du ma ko def am ama jëmmi nag samay ngaat ngaat ak ni may amusé wu ak ni may dundee ku tedd ki loolu boo xoolee forme bi mën na laa nax loolu it bëggoon naa nit ñi xam ko li ñuy tuddee sécurité itam bu dee man sama jëmmi bopp ji wax dëgg yàlla nii daf may doy nii daf may doy najjaani daf may doy ndax ida qatattu tazza arshullahi wa sabahat malaikul ilahi mbindum ku tedd ki benn xaraf kat buy bind maanaam aras di yëngutu malaayika yi di sàbbal loolu xajul ci dara moo tax kay man xanaa bu ma bëggee lu ma aar foofu laay koy wut maanaam mbir yi sécurité yooyu xañ na yu xew la ci jamono la rek waaw loolu dinaa ci ñëw duma ci sori ndax euh, balaa yàgg war na maa wax wax ju leer ju yaatu waaw wax historique gu diwaanu Silkul Jawahir fi axbaar bari sarair yëpp waaye lii daa mënta ñàkk balu àq ñëpp nag ak di sant ñëpp itam ci cofeel gi ñu may woon ak yëg yëpp waaw Cheikh Bassirou Abdou Khadir moom dama koy waaw beralug cant ndax itam wax dëgg yàlla dëgg la ñëpp ngi wane yëg ak cofeel waaye moom def cee xaabaabal moo tax ñu ngi koy sant te di ko bàyyi ak ba ci njiitul réew mi wan na ma wan wan am na lu ma ci wan loo xamante ni bii ci sama diggante ak moom te état état la bu liggéeyam jotee <laughs> moo xam waaw moo xam moo xam nañu koy doxalee ak seeni directive bu ñu ko joxee ak ñu ñu koy digal ñu koy defee nañu koy defee naka jekk loolu moom ci état yëpp la waaye yooyu lépp daa jotewut ak li may wax dara man daal fi ñu toll nii sama njaboot euh, ñi nga xamante ne bii ku ci à partir de maintenant ku ci xamante ne bi da bëgg a taxawal cellule de sécurité wala dara ah nga dem ci loi bi dem ca intérieur waaw dem ca intérieur bi ñu la autorisé pour nga taxawal ko ndax gis nañu société privée yi di am ay sécurité ak ay yu demee noonu waaye man yooyu yëpp sax man dama cee nekkul waaw man yooyu yëpp dama cee nekkul wax dëgg yàlla bañ naa ko ba dama tëj sama bopp kaso ay ate ate ate at di bind ci ku tedd ki looloo ma ñor waaw loolu lay dund itam bëgg gi ma bëgg a dugg kaso nag kooku ci xol bi la sama diggante ku tedd ki la loolu moom ça n'a rien à voir du càggi nag damay jóg di tooñ pour duggi fa wala yu demee noonu déedéet loolu moom noonu lañ ma mooñaalee ndax ku tedd ki moom moom féete ma fépp nekk sama kaw féete ma kaw féete ma suuf féete ma biir ak biti ak ndeyjoor ak càmmoñ waaw banyak ñàkk ba ni may ñaane mooy noo ngeete nii di la bàyyi sunu ak sunu lepp ak sunu ñepp waaw ki kay kon manam hutuma fenn lenn damay ka ki rek diplomatie ak yoré samay façon rek gétaru gi nak mom faw ma koy def ndax ak soldat ci bopam mom manam dafa dafa nek ci sama xol toujours damay faral di wax ni discipline militaire mom mom lañ fi wara eh, eh, instauré ak yu demee non manam ma bëgg rek Sénégal yi xamni mom gis ngeen nak ku tedd ci ni ma suturaale agit ni mu def ci ndaw ñi nga xam dañu fété ak man nga xamni seen xel xalaatul nekk di yu bok ci ñuy sami xéer ak ci ay deret ñoom jërëjëfi Serigne Touba waaw mo nekk ci ñom loolu itam wax deug yalla ak tiant la moo tax ku tedd ki ñu nun koy santé bu ko defee lool nak waa yu mi xam bu soobi yalla bala yàgg bala at may jeex wana ma def sorti médiatique bo xamanteni bi dina gëna yaatal leeral sama njaboot njaboot génn ñu fonk ndax lu wéx lu wéx àjjana lu weex lañ fay sol kenn du fa sol couleur yi ay noo de fii la xewee waaye àjjana moom lu weex rek lañ fay sol kon nañu xewal nañ dellu cosaan ci jamono yi sëñ Modou Moustapha dem ci dellu ci perkaal waaw ba noppi nag waaye du tee nag faw ngeen ciy boole costume yi ndax costume <laughs> mooy temporel bi faw ngeen ciy boole kii nañuy nañuy yiw rek waaw nañuy yiw ak sell rek man nag faw may geetaru waaw ndax dafa am lu may incarné loolu moo tax waaye waaye gertaruloo ma kenn solootuma kenn teni bu ñu naan kii sécurité la wala yu noonu man kenn mënu ma sécuriser ku dul ki ma moom waaw def ci man lim ma ci fexe ba maanaam dara ñoruma lu dul moom ak yëfam ak i waaw loolu daal maa ngi balu ak mi yépp waaw ni balu ak ñëpp tey kii nag gën a ñaax xale yi di leen xiital ci ku tedd ki waaw ku tedd ki nag moom dara am njàngleen moom imaanan Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.